fekk de maag ville de Dakar yëpp conseil municipal bi ñoo ànd pour ñëw indi participation ville de Dakar ci événement bu rëy bii lii ñu am nag Dakar moo ko am lu mel nii war nga def lu rëy rëy rëy rëy dañu ñëwoon rek doon barkeelu si indiwaale suñu contribution moom laa bëgg woon léegi jëwriñ bi fi nekk comme que mbakki wu nekk fi ñu jéem a dem kër xalif bi ziar ko bu mu nee nekk ñu mënee dellu si waat itam ñu dellu si ndax nag ñun ñoo yore gan yi. xayma indi nañ 5 tonnes ceeb indi nañ 30 euh, bidons d'huile indi nañ une tonne soble indi nañ 10 000 litres ndox 10 000 bouteilles d'eau ah te 10 000 bouteilles yooyu bu bës ba am na yeneen 20 000 yoo xam ne daayira ville de Dakar bi moo koy distribuer. ah juma bi moom bi ma fi njëkkee defe naa ne euh, jëwriñ mbàkk yi daf ma ne déet bul waxati dama ne lii de amul sax màkk. kon lii ñu am tey euh, Serigne Touba moo ñu ko defal passage am bi mu jaar Dakar moo tax yàlla suñu borom récompensé ko lii la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest lii fierté la pour tous les Dakarois fii sëriñ Touba moo ñu ko indil fii la nekk di ko toppatoo di ko aar daf ko loo xam ne endroit boo xam ne du mel nenn ci Dakar ndax liñ fii def amul lenn lu ko niroo ci biir Dakar kon ñun mbégte bi ñu àndal moo tax ñu ñëwoon ñun ñëpp nag famille yëpp wër nii ñu ñëwoon vraiment doon ñëw siyaare si visite tuuti mosquée bi joxe suñ contribution ziar sëriñ bi yàlla nañ yeggaleeg jàmm may oo nag Dakar waay yëpp da ngeen am ay gan na ngeen génn ngeen ganaleen nit ñi ngeen dugal leen ci ne yéen ngeen génn ci biti ndax ku am gan danga koy teral te ci àddina bi yëpp la ñuy jógee bu leen fàtte ne c'est la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest kon waa Dakar am ngeen gan nañ teral suñuy gan teral xalif bi gis ngeen démb ni ñu recevoir xalif bi noonu la ñu war a continuer nag ba ba inauguration mosquée bi nañu góor góorgóorlu ñun ñëpp continuer ci set bi gis ngeen avenue bi ni mu setee lii xam nga ne mosquée bi rek moo ñu may bii chance yàlla na law ci biir Dakar yëpp ba nga xam ne foo tourné ci Dakar dana fekk jumaa ji Masaalikul naan moo leen wàllu ñoom yeneen quartier Dakar yi